salaamaaleykum mbokku internet Pexxe TV man la seen mbokku taalibe Youssou Saliou Gueye waroon def émission bi di mbégte mi rek waaw fépp fu waay mën a ne moo xam ngay murit tijaan xaadir laayeen ñaseen waaw ba ci chrétien bi sax fépp fi nga nekk war mi rek dinaa fa dugg ci cant yi ci jànkatu alxuraan yi ca kuréel xasaayit yi bàyyi fenn fenn fenn seen mbokku taalibe u Saliou Gueye moo fi nekk war a dund a génn ci mbegte mi na ko xaar avec mbegte mi rek di dund mbégte mi ci télé Pexxe TV